qui est venu avec une délégation forte délégation Ali Ali nous nous donc nous ñu aussi son frère nous ah, Nous le président Idrissa dama bëgg ngeen ko bu s'il vous plaît ah, monsieur Ibnou Kal euh, merci d'avoir fait le déplacement donc euh, c'est un honneur pour nous de vous recevoir Ce c'est pas évident Nous avons nous que nañ samedi matin nous avons fait la digue. mais d'habitude le soir nous avons fait di Donc, donc programme il nous continuer parce que nous avons fait ay délégation monsieur Ibnou qui nous a fait l'honneur n'est-ce pas d'être ici Momite,

xeex immigration clandestine et le trafic illicite d'immigrants donc balaa ñoo jàll rek dañuy jox ki nga xamante ni mooy Ibnu moom it mu def le mot de bienvenue souhaité ko association bi jóge Mboro déplacé wu ñëw ak les sourds-muets ñoom à travers le président de l'association muy Ndiouga Minti dama bëgg ngeen ma ko bu baax a baax a baax muy Lachan ngeen xam ji école

Nous ci lutte contre l'immigration clandestine vraiment c'est devenu un fléau pour les autorités parce que je n'ai pas de vraiment des décisions. mi euh, une préoccupation au plus haut sommet donc l'initiative est vraiment pour sensibiliser les jeunes euh, euh, c'est une mission noble c'est vraiment quelque chose de salutaire euh, l'autre point muy stigmatisation envers les personnes vivant avec un handicap je pense bien que c'est une c'est un sujet aussi d'actualité et très est très important pour ñu ciy wax parce que tamit laago euh, lago ku nit koo xam ne ñu ngi dund ak Lago dafa dafa bokk tamit société taxul ñu koy vraiment diko ko bedd yi wala diko ko dafa am place manam ci société bi té loolu dañ ko wara occuper euh, pleinement euh, donc d'al pour tënk d'al dinañ wax ni vraiment on est honoré de figurer parmi les invités je vraiment vraiment euh, conseil départemental à mon nom euh, nous souhaitons la bienvenue et tout en espérant que ce forum va se dérouler dans les dans de très bonnes conditions espérant que les premiers Hamidal organisateurs, organisateur bi ak ñi invité un nañ ko succès voilà, sur ce, je vous remercie et euh, vraiment euh, vous souhaitez euh, la bienvenue et merci beaucoup. Je vais dina de l'occasion d'intervenir. intervenir wax lu baax jëmale ci ñun je dañu ci remercier bu baax xam tu es un homme au grand cœur ah bonne ñu jàll ci li nga xamante ni moom mooy le programme dañuy jox njuga minti moom mi nga xamante ni dafa déplacé avec une forte délégation Mboro ba fii muy l'ACHAM association des handicapés de Mboro ak aussi association des sourds-muets bu ñu ko joxee micro bi pare bi soo ko jox nag mbiidu ak présidente des handicapés de Thiès ku ci ne sànni sa kàddu ci yëf yi ak noo gisee bés bi ak euh, donc euh, technique bi baax la. asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi nuyoo waat rek di jaajëfal sama naataango yi toog yaakaar naa ñoo bokk li ñuy def di remercier bis bi comme nit ñi ko suñu mbokk yi yëpp waxee euh, ci engagement bi nga xam ne am na ko ci société sénégalaise bi. voilà donc en tant que animateur de terrain xamante ni damay liggéey ci inclusive ci ONG yi ci association des handicapés partout donc national et international voilà donc dinaa sommes trop ci waxtaan bi tey bi ñu xamante ni dañu jagleel pour ñu war a wax ci situation handicapé en général voilà donc. Euh, fi ma ci commencé rek mooy Sénégal euh, dañu dañu dañu desee miis laago te état du Sénégal ba léegi mu ngi ciy dox ay jéego ndax am na liggéey boo xamante ni xaatim na ko ba teg ko euh, waaye ni ma koy duggee rek mooy que ni Sénégal laay wax en général dañu desee miin li ñuy wax laago ndax soo xoolee tey euh, débat bi Euh, mooy que ni ci euh, ko am na ci toogoon fii sànq moo ko wax euh, laa ko mooy ki nga xamante ni xolam baaxul je pense que man foofu laay commencé ci ci waxtaan bi ndax nit ñi dañu jàpp ni handicap mooy doomu aadama bi nga xamante ni cëram dafa am lu ci manqué baa xelam wala muy doxee puus puus baa muy raam la muy béggi kooku moom mooy moom mooy moom mooy mooy laaloo di wax ni handicap vraie définition handicap du loolu le mot handicap li muy tekki mooy euh, tout le monde àdduna bi képp ko gis rek handicapé la muy personne valide ak personne invalide bi handicap mooy nga mën lu sa morom mënul foofu la handicap di commencer cest à euh, ci benn misaal bu ndaw rek mooy que ni man damay jouer guitare mais ki ma dendal bu nekk lu musicien bu ma ko joxee guitare bi guitare bi amalu ko jëriñ bruit rek la ci def mais du ko jouer ba nga mën ko dégg cest à loolu mooy handicap kii électricien la kii maçon la kii mécanicien la man doonuma ko kon kii mën na loo xamante ni mënuma ko c'est ça loolu mooy handicap léegi nag nit ñi ñëw dañu jàpp ni le mot handicap boobu noonu ci way laago bi rek la nekk alors que demeewul noonu parce que Sénégal mën naa ni yàlla du xañ doomu aadama lépp handicap bi en général bu leen yàlla xañee cër da di may beneen cër muy xel te seen xel tamit da leen di xiirtal ci xarañ xarañ maanaam dañuy xarañ dañuy nekk ñoo xamante ni bu ñu duggee ci benn métier rek dañ ciy xarañ lool dañ ciy xarañ lool suñu borom moom mooy mooy mooy def ndax moom du tëj buntu wàccee rido léegi nag responsabilité bi nga xamante nii mooy responsabilité bi gën a mag ci responsabilité yooyu mooy mooy de un mooy wayjur yi waay yi su ma waxee wayjur yi papa ci la bopp yaay ci la bopp sœur ci lañ bopp waa kër gi ci lañ bopp foofu lañuy ñuy commencé ndax suñu nee wayjur yi te jigéen mooy mooy mooy mooy mooy mooy ëmb mooy wasin jigéen moo moo fi indi ku nekk jigéen moom mooy wasin doomam mu amee handicap léegi nag bu bu bu handicap amee ba nga xamante doom juddu la ñu xool xam ne kii handicap am na handicap léegi foofu lan moo war ci xale boobu bari na parents yoo xamante ni foofu la ñuy njëkk amee échec ci ñoom dañuy dañuy maanaam dañuy téye xale bi moo am laago ëllëgee ñu yóbbu ko ci docteur mu xool ko mais dañ koy jël yóbbu ko ci sëriñ si kenn jóge fee ñëw nii bon sama doom bi day mënul toog day tëdd rek day tëdd rek moom mënul toog ndigg li daal moo moom moo baaxul ñu ne la sa xarit bi ne la yóbbu ko ci sëriñ diw mu xoolal la nga gàddu doom boobu yóbbu ko ci sëriñ diw sëriñ bi xool ko ne la kii doomu jinne la kii doomu jinne la maanaam rab la quoi jinne la quoi xale bi xam na ci sax autant autant sax sëriñ yoo xamante ni dañ lay wax ni la dañ lay bindal ay ay ay téere nga bàyyi ba minuit nga yóbbu ko ci àll ba nga sànni ko parce que kii doomu jinne la donc nit ñi bëri yàgg nañu sànni ay xale yoo xam ne nit njaay lañu ñu sànni leen dootuñu fa sax jaar leneen a fay jaar faagaagal leen wala yàlla moom moo xam rab yeeg ainsi de suite donc nga gis ni kon kon way jur bi moom manque d'information ci affaire u dikkal na ko ndax ëllëg nga am sa doom mu feebar nga yóbbu ko ci médecin mu xoolal la kii ban problème la am mais ci sëriñ nga ko yóbbu mu gàtt xel lool jox la tegtalam nga jàpp sa doom yóbbu dem sànni bale nit ñu bëri faatu nañ ci donc loolu nekk engagement boo xamante ni jur yi ñoom dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci am jafe-jafe te nit day juddu mais am jafe-jafe am jafe-jafe dégg wala mu am jafe-jafe gis wala mu am jafe-jafe toog wala mu am jafe-jafe dox wala mu am jafe-jafe wax wala mu nekk puune albinos nga xamante yaram bi day weex tàll léegi-léegi nga gis xale bu juddu nekk puune ñu ne yaay ji de ab naaru libaane la doon sekkal ba tubaab la fi indi wala ab tubaab sax la fi indi da koy gis ci foyer parce que papa ji sax du comprendre ni ki albinos la day jàpp ni rek jabar ji da ko mooy ba indi fi doom bu xees pecc alors que suñu famille amu fi kenn ko mel nii après bu ñu dawalaatee tuuti ba xale bi commencé évoluer ñu door a rendre compte ne xale bi puune la mais laago sunu borom moo koy teg doomu aadama moo koy teg doomu aadama léegi nag pour ñu mën a régler situation yooyu mooy premier diagnostic bi ñu war a def mooy que ni boo amee doom nga am yenn danga koy seetlu soo amee doom danga koy seetlu da xool cër yëpp A ba nga xool testé ko ci ay bët ci dégg-déggam ci ay yaram ci lépp ba nga xam ne kii moom xëy na am mënaguloo xam jafe-jafe waaye boo amee jafe-jafe tamit bëriwul mais parents yu bëri ñoom duñ ko doxalee noonu léegi xale bi commencé évoluer di màgg yow mi nga xamante ne yaa nekk ak moom ci biir kër gi alors responsabilité bi nga ko war a jox ak këdd bi nga ko war a jox soo ko ko joxulee mbedd mi du ko ko mën a jox. tey fii parce que defe naa suma frère suma jarbaat bismi bi bu wootee yéen ngeen ñëw teew du ñu def lu leen remercier leen sant leen waaye nag xëy na peut-être nit ñi temps bi am ñoo xam ne fi mu nekk léegi xewlooguñu moo tax ñëw mais bis ñu ngi leen di nuyu ak toute l'équipe bi la bi la bi la bi la daal mm-hmm. euh, <coughs> voilà ñu ngi leen di encourager ak équipe bi la dal gis nga lii ngeen def nii jaamu yàlla la ngeen ci jaamu suñu borom bi ndax am loo xam ne bu ko nit ki dox xaaru ci dërëm xaaru ci alal xaaru ci teraanga loolu di ko def bénévolat qu'on di aussi xol parce que yombul yombul di dem les couches vulnérables di dem les handicapés di def sensibilisation di dox guddi ak pour seen nekkin dong a fay fay ci mission boobu ngeen di attirer attention ci parce que lu mel le président Mamadou Lamine Massaly kooku je pense que kenn dootu ko présenté au niveau du Sénégal parce que lu tax li muy def nee na yàlla takk mu koy def du ci xaar dara loo xam en contrepartie da koy séentu ci lo xamni nit ñi dañ ko koy delol ci alal dedet liñ ko ko ci delol moy ñaanal ko fan wu gudd wér ba limuy def ci askan wi yalla de ko ko man loo parce que bis bu du ma bàyyi defe naa ma wax leen lu loolu soo xoolee ci les côté côté femmes yi euh, alhamdulilah rabil alamina parce que bu jëlee ba 200 millions teg ko ci table suba incha allah buñ ci yàlla bàyyee ba fekke ñu ko occasion la sax yéen ñëpp invité nañ leen pour premier loo de vingt millions yu ñu jox jigéen ku ci mën a ñëw aussi tamit invité nañ la. nga gis li ñuy liggéey ak li ñuy dimbale doomu aadama yi surtout jigéen ñi mu ñu am nag benn carnaval boo xam ne dañ ko teg jigéen boo xam ne formé nañ 20 30 40 ba 50 personnes dana leen jox million léegi su fekkee passé na cent personnes kooku day dugg ci loo 200 cent million kon yaakaar naa ni. loolu ku ko def ci askan wi eh, boo ko jàppalee incha allah partenariat bi dana gën a dëgër nee na mi ngi lay remercier bu baax a baax di la féliciter di la encourager parce que yéen ñaar comme ni ma koy waxee rek altine la ak talaata bis xajul seen diggante kon mu ngi lay feddale kóllëreem ak yow eh, aussi di jël engagement boo xam ne lépp loo xam ne yéen a koy jëmee ci ci yi ak eh, ñi nga xam ne ñu ngi dem si géej gi lépp lu mu si leen jàppale parce que éveil de confiance conscience la rek nit ñi am na ñoo xam ne xamuñu mais il faut que ngay wax ak ñoom il faut nga dem côtoyer leen il faut nga dem méthode d'approche bi boo leen jigee waxtaan ak ñoom danañu dellu seen xel parce que am ñoo xam ne dañ koy def mais boo leen laajal la tax ñu ne ah non parce que réew mi neexul réew mi non du question réew mi neexul parce que bu réew mi neex bu ñu nee réew mi neexul ñëpp ne réew mi neexul mais kon gàddaay bi day bari même réew mi bu neexee da nga seet nan la ngay def yow ba mën bok ci pour lu natal réew mi nan ngay nana def ba tek euh, euh tek ben jalon parce que aussi tabax boy tabax defe naa da ngay teg brique bu njëkk boy dem aussi ci étage aussi defe do doo tëb tëb rek di egg ci kaw da ngay teg escalier tek escalier teg ba egg parce que lepp du dara lu vision la rek ak gëm-gëm li ngeen nek ngeen gëm ko et le chemin est long bari na ay xat-xat ay pakk-pakk mais il faut oser vous avez osé vous avez osé ci lii parce que comme ni ma koy waxee rek di jaamu yàlla la jaamu yàlla la man ñi am na ñoo xam ni ci suma koñ fële dañ daan xëy suba gis ñi nga xam ni yàlla def leen kii seen xel wóor na yàlla ñu jël ay saaboog yëpp dem ba ginnaaw raay ba fële di leen sang loolu tamit aussi vraiment ak euh, ak euh, acte la yoo xam ni ku nekk war na ko mën a def parce que ken xamul euleut mais nga def ko ngir yalla mm-hmm. euh après ak ti bolé ko ngëm. boko ko suñu borom bi moy fay. parce que payu yalla mo gën payu doomu adam li ngeen def vraiment ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax di leen encouragé de toute façon comme ni ngeen ko waxé le président Massaly mom li yakamti na ko ngay ko solliciter di le côté social. néna mom lu mu def lu mu côté social dimbali ni dimbali jàkkee def yépp ku ko ci woo moom defe naa yaakaar naa ni bu nekkul premier dina nekk deuxième te yaakaar naa ni li ngeen koy woo aussi dana leen si wuyu parce que doomu aadama boo xam ne macha allah am na yërmande yaatu na xolam yaatu na te dafa bëgg aussi waa góor façon euh, dama ànd ak ay su may pas su may kii mais su may naataangoon parce que euh, buñ la jiitalee aussi nga ne man maa jiite rek maa jiite quelque fois aussi da ngay jël gâteau la boo xam ne. faut savoir partager boo mosee fii da ngay ànd nga jox ñi ci des aussi ñu mos faut pas tout euh, accaparer dans la vie il faut avoir aussi le sens de du partage bis euh, ñu ngi leen di sant di leen encore remercier waa Mboro parce que Mboro lu Thiès sori na suñu fa jógee vraiment ak dynamisme ak courage aussi il faut que quand même ñu remercier saluer leen di leen ñaan aussi bon retour incha maa ngi jox adjudant Dia mu sànni ci ay quelques temps. na ngeen ko la wax s'il vous plaît. di bépp doomu adama bu nekk ci biir saal ñu ngi nuyu suñu naataango yi fi fekk suñu suñu soxna yi ndax honneur aux dames parce que fi ñu ma nee nañ jël parole ko ne leen jox jigéen ñi d'abord comme on est venu un peu en retard fekk ñoom wax nañ ba pare mais jigéen. Euh,

président de l'UNR ñëw bi ñu ñëw nag président bi ñëw daf ñu xamal ne kii ngeen di def nekkul ku bees ci man nekkul un étranger ci man dama leen di yónni te ki ma leen di yónni mooy suma frère la suma frère la sama doomu ndey la sama nit la bësam sama bës mu ne ñu ñun ñii en tout man. nday mari masali wala nga xamante ni moo ko masali ñoo bokk nday bay bu joon bi démb ba cinq heures du matin cinq man bi muy dugg sama kër boobu ñu ni salaatu xayru mi ne na te ci ay kese lañ doon yóbbu ay ndëmbal yu doon yóbbu ci différents organisation kon ñu ngi jéggul ci retard bi di jégglu bu baax di jéggluwaat ci assistance te xam ne président Massal ne na yow soo organisé moom moo fa jiitu moom moo fa jub moo fa war a mujj moo war a dalal gan parce que yow ci moom kon nag yéen ak seen diggante ñaari paa ngay wax rek altine talaata bés boobu fi ma ñëw ci suma frère yi nga xamante ni mooy taxal moo war a bés bi euh, yàlla mooy bind te yàlla bu doon dogale nga nangu dogal bi rek dèjà loolu ngëm yàlla la te yéen gis naa ne ñu gëm yàlla bi te gëm yàlla xam nga luy pay aljanna ku gëm suñu borom gëm ay dogalam loolu bokk na ci imaan suñu borom def mu neex la mu dogal nga muñ loolu mooy jullit en tant que nit en tant que jigéen en tant que jeunesse en tant que ñiy jël gaal gi di dem bitim réew gis nga Japon ay xobu garab lañ doon lekk ba dégg tey nit ñaa ngi bëgg a immigré ñu dem Japon bokk nañ ci pays les plus riches au monde ci la bokk kon bu ñuy émigré dafa dem lu tax c'est parce que waa réew mi ñoo toog liggéey seen réew gis nga Sénégal bi Malien du ko defar Guinéen du ko defar Gambien du ko defar ay Sénégalais ñoo koy defar te ñi fi nekk gëm naa ni bu ñu gëmee li ñu def man 4 millions su ma ko doon di ko dugal ci gaal wallaahi ma développé ci ci ci ci ci Sénégal gi nañ leen toog y a du travail am na espoir Sénégal parce que li fi feeñ musul feeñ fenn Afrique gi tey des na tuuti dootuñu ñu kenn kon nañ leen toog liggéey suñu réew bu ñu nangu dem di liggéey réew jàmbur bàyyi suñu réew président Mor la Sall loolu la woote parce que ki débloqué 200 millions teg ko ci table ni dama bëgg. yéen ñii ngeen dem di di mënal seen bopp ba nga xamante ni kenn ku tàllal sa loxo sa morom kooku bëgg nga ku toog Sénégal liggéey Sénégal surtout Thiès ndax Thiès ñu ñoo moom kenn du ko liggéeyal kenn du ko liggéeyal ñu ñoo koy liggéeyal suñu bopp kon nañ leen toog ci dëkk bi liggéey dëkk bi ànd ak doomi dëkk bi nga xamante ni dañoo bëgg dëkk bi président Massali immigré wul demul Europe demul fenn il leen né au Sénégal. il a travaillé Sénégal fii la tekkee ci biir Sénégal bay dimbali ay nit ñuy tekki ci biir Sénégal kon Sénégal mën nañ fi tekki te nañ ko gëm suñ ko gëmee rek dem président Massa ñu leen di tàllal loxo les handicapés les les doole yi surtout parce que damaa toog lii may wax nii kenn nett lu moo ko man maa toog fekk li c'est le seul leader au Sénégal boo xamante ni soo defee ci buntu maison du parti booy fekk mu toog laal basan ñun ñi ñu toog ay collaborateur di waxtaan ak moom ba quatre heures du matin bis bi du ma bàyyi xel toog nañ fa ba tey yaa ngi muy toog ñu naan doo ataaya di lekk gerte caaf ba fajar muy recevoir ay gan recevoir na ba recevoir ci mbedd bi ñu toog toog nañu benn guddi benn waaye ñëw handicapé ne sama kër yoruma location te suma ma delloo danañ ma génne wallahi waaye ñu toog ba femme mu toog di ko wax président président ko ñaata la mu expliqué ko président ko am nga numéro téléphone mu ne ko waaw. loolu mën na sax. Mm-hmm. li tax ma mm-hmm. ko jàpp kontaan ci participer ci bis bu mel ni je pense que ni tey saal bi dañu waroon fay pour dugg ci mais xëy na yitte yi ak programme yu bari yi nga xamante ni moo tax ñu tardé suñu yeneen naataangoo yi ci lañu nekk. mais lii jaroon na nit fay pour fekk ko parce que suñu demee ba dëkk espoir amatu ci ba soo jëlee ñi war a nga xamante ni ñooy doon avenir ëllëg ñëpp ñu naan dañuy dem xaru ji alors que xaruñu dañu amatul espoir désespoir moo tax ñu koy def parce que nit ku liggéey wala nit ku kos jël sax sa xaalisu yaay mu teggi jox la ko nga dem lenn rek nga ci jublu am ngir teral leen et pourtant fii mën nañ fi teddee mais lan moo waral désespoir boobu c'est ça le muy ñaari responsabilité yoo xamante ni dafa partagé un muy échec état l' état c'est nous d' abord pour muy leer parce que nekk ñu fi pour politique beneen bi muy responsabilité parents yi xale dañ koy yar à age mu am éducation de base te ñu xam ne wërsëg bi yàlla moo ko yor nit dem na tekkiwul nit toog na fii tekki donc ñu mën a xam ne fii richesse bi fi am amul feneen surtout nag Sénégal bi ñu nekk waxatuma Afrique mais suñuy wax marbre ñu ne Sénégal am na ñu ne pétrole ñu ne Sénégal am na géej gi ñu ngi fi mais yooyu yëpp lan lañ ko war a mën a defee nag loolu day des nag ci loxo ñi nga xamante ni ñoo yor suñu destin réew je pense que ni maa ngi nuyu délégation Mame Boye jaaw une fois ñu fal ko xam naa yooyu dina ci def ay saaxal donc beneen bi mooy beddi ki amee laago mooy ki beddi waate laago du ci cër ci xol la nit ki nga xamante ni yaa ngi beddi sa moroom mooy yow danga amee laago parce que sa xol baaxul tey su ma xoolee sama sœur Yacine qualité yu nekk ci moom dama ko xam dama ko pratiquer tey mi ngi nii toog tey su demee ba xalaat coopérative di ko jëndal li ñu tuddee ay waayu laago di def versement par weer ci ñun kon laago amul parce que am na ñu am lépp te amaguñu sax aspantere donc maa ngi ñaan ñu tàccu yaasin bu baax a baax ci effort yooyu fi may tëjee suma kàddu mooy di sant koo xamante ni eh, je pense que ni Thiès dañu war a fay bis mi bis mi à chaque fois nga gis ko muy dox du soxlaa boppam lan la mën a apporter société am lan la mën a defar Thiès bis mi Thiès mu di merci fierté nga loolu dama koy wax ñun bi ñuy nekk xale yàlla dafa def yar nañu ñu bokk benn koñ euh, jàpp naa ne suñu mësaan toog di seetaan RTS ba ñu teg sa clip xëy na li may wax ñu bari duñ ko xam yéenay groupe rap bu njëkk cees bu génne clip Thiès kaay benn dëkk ñaari gaan ñu bari xamatuñu loolu parce que xale yu bari fekkee ñu loolu donc fierté la ci ñun parce que bu njëkk benn télé moo amoon RTS su fa nit daan génn Thiès kon star la donc ci star yooyu malgré cela nga jël carrière yooyu yëpp nga génn ñibbisi Sénégal teg lépp ci suuf di liggéey biir sa askan dañ ngay wax merci je pense que ni nag dañu jëm ci lu doy waar muy ay élection ñëwuñu fi pour far dañuy waxal askan fépp lépp lu ñu war a càmbat li ciy jiitu mooy lan moo ci intérêt Sénégal lan ban programme moo ci laal touche yëpp parce que tey suñu waxee touche bii bàyyi bee mooy bedd nañu benn touche te fii dañuy bañ ko beddante candidat yëpp saytu leen leen ku leen doy voté leen ko yàlla nañ dem ci ay élections yu am jàmm ak salaam merci. grand-mère ñu demoon fa jaale ji avec une délégation loolu moo tax ma ne ko xëy na nar moon ñëw mais yow sa bis su ma fi teewul rek dafay am luy manqué donc te initiative dafa nekk initiative bu am solo. parce que ñun ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur de dans le secteur de l' informel donc ci yu mel nii boo dee xool mbëkk mi à travers ñu ci bari ay tailleur la ñu wala ay artisan ñooy bàyyi seen métier di jaar ci gaal yi di dem di dee tout récemment la semaine passée on a perdu euh, suñu ñaari doom kenn ki mi ngi dëkk Medina Fall tout récemment rek ndax il était malade ci biir bato yi ba ba ba décédé finalement noonu lañ ko mujj ñàkkee te loolu yëpp bu am ci suñu secteur ñun en tant que porteur de voix nek ci secteur artisanat su lu melni amé war nañ fi mëna wax ci anam Bobu en tant que acteur ci secteur artisanat bi waaye sensibiliser aussi en tant que chargé de communication au niveau de la chambre des métiers de Thiès nga xamné tous les métiers yi nga xamné 126 corps de métiers yi nga xamné mo nek ci ci ci ci ci artisanat donc ñun dañu am droit di wax ak ñom kon donc dañu am possibilité de faire wax ak différents corps de métiers yi donc bu ñu ñëwé fekk fi toute une famille aussi danañ ko l'eau. Euh, rafetlu initiative bi ñaanal DJ Bismi ak ñi nga xam ne ñoo koy accompagner parce que li yombul euh, dañuy ñaan rek comme ni ko Mamadou Lamine Massaly defee Mame Boye Diao defee ko noonu ak ñeneen ñu jàppale doomu Cees yi parce que doomu Cees su jógee lii mu def nii uti ci dara uti ci lu mu def ci poosam parce que bu doon lu mu ut ci poosam mën na ko defee d'une part mu la mu defee ko neneen parce que xam naa ses potentialités vraiment kon loolu dañ leen di encourager di wax ci collaboration bi nga xam ne vraiment am ngeen ko Euh, loolu dañ ciy sant di ci gërëm bu baax a baax a baax barki démb tout récemment rek dama dalal sama frère euh, adjudant Dia on a fait émission par rapport ñu waxtaan ci euh, vie carrière am ak politique am ni mu ci duggee tout ça mais bi ma paree xam nga télévision am ñëpp koy seetaan yaa quelqu'un qui m'a appelé mu ne ma allo président mu ne ma naang mu ne ma yow est ce que bokk ci parti Mamadou Lamine Massaly <laughs> loolu ce qu'il m'a dit donc <laughs> loolu loolu après mu ne ma bokk que tellement que émission bi il a il

donc il n'y avait pas de l'organisation mais au niveau de la région de Thiès il faut dem organiser une association au niveau de Mboro au niveau de Diogo au niveau de Kayar au niveau de Mboro il faut nañ organiser c'est une structure régionale reconnue nous xam parce que nous avons wax organisation régionale du ay wax mais démarches la y a des défis donc c'est ce que nous avons fait encouragez ko di nuyu aussi la bi nga aussi sunu moyen de communication la ñu ko pour cérémonie la DPS TV aussi nga c'est un frère Mohamed vraiment momit déplacer déplacé wu ci manifestation mais nous, ñi ngi ñaan yu melni ñu gën ci bayyi xel di ci def sen alal di ci def ay moyens qu'il faut parce que ñi ngi jël sen alal nous fenen fo Nous fi amul bop amul geen amul njariñ mais sunu mbokk yi nga xamné dañuy sensibiliser ci activité bu melni loolu waxuma kenn mais ñëpp ñoo ci war a jàpp comme ni ci Massaly jàppee comme ni ci Mame Boye jàppee ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen encore une fois on vous remercie di leen sant di leen gërëm maa ngi ànd ak Moustapha Sow président de la commission finance bu regroupement des tailleurs nekk aussi euh, président social ñu ngi sant ñëpp di gërëm merci beaucoup. Mame Boye Diao di ko jaaree si madame Ngom Khady Fall di président Ndiouga ak ñi toog si salle bi yëpp. di wax furam bi ngeen def dafa ñëw à son heure ak moment parce que ñu ngi nekkoon si semaine nationale des personnes handicapées ñëpp xam ne décembre weeru personne handicapée yi la te ñu premier thème ngeen wax si affaire immigration bi toujours dañ naan man dama ne jeunes yi dañoo impatient parce que dañ naan la patience est un chemin d'or te pour nga takk or wala nga am or or yombul kon nag da ngay ramper di def nànk-nànk ba ëllëg nga am ko ndax borom kër gu ñuul ñàkkul dara mais tey nga yor kër gu ñuul nga ne tey tey ma tekki tey tey ma am amul fenn kon da ngay ràmbe ba yàlla jox la sa wërsëg parce que wërsëg suñu borom moo ko yor comme sax am ko doon wax mën nga mën nga toog fii nga gën a tekki ki nga xamante ni moom dem na Europe nga dem Europe amoo dara kon nag nit ki da ngay doylu lépp doylu la man dama naan fët bi c'est les parents parce que boo yoree yenn alal yi nga attan di liggéey pendant des années nga dajale ko un bon jour nga jëkk a jox sa doom ni ko pour mu voyager mën nga ko créer beneen projet si biir dëkk te du dem voyager comme foot bi yi laa koy parce que jeune bi dem yoru xaalis parent bi moo ko jox jox pour mu dem pour mu tekki kon parent bi ñoom ñooy sa doom mënoon nga ko créer beneen projet ba mën na see liggéey ba xamante du dem di def euh, immigration clandestine ndax yàlla mel nañu loo xamante ni richesse bi mu am duñ ko wuti fenn comme ni arrêté am nañu ndox am nañu or euh, tool yaa ngi fi fi kon mën nga liggéey te dem doo wàlli yaan fenn loolu def naa kuy wàlli yaan boobu sa dëkk moo tëggul te Sénégal def nañu richesse yi am nañ ko di jàll si deuxième thème bi muy la discrimination des personnes handicapées discrimination foofu man dama naan famille bi la d'abord ndax nga jur doomu handicapé mu judd yow balaa nga wax waxu ñeente d'abord état civil moo jiitu ndax loolu dal nañu si carte égalité de chance bi nga tegee si lañ découvrir que handicapé yu bëri kenn déclaré wu leen ndax loolu dañoo judd nekk handicapé seen parents yi amuñu yaakaar si ñoom yóbbu wuñ leen école déclaré wuñ leen ba am problème mu état civil bu dañoo obligé di organiser ay audience foraine

bopp bi kenn léttu ko mu xaaral ki nga xam du handicapé nañ koy sëñ ba mu set defar ko ba mu set léttu ko léttu yu baax xale handicapé bi su sang si bopp bi mu ngi raam tilim wéex taal taal kenn xam ne mu ngi soo waxee ñu ne ah moo koy dem fenn parce que ni mu mel man nga mu ngi wax ñun ma su ko damay posé question xale bi noo tudd mu wax foo de ku sa yaay ku sa pap xale bi wax mu ne léegi lu tax mu demul école. ni la ñu obligé année boobu muy 2017 2019. Dans la région de Thiès, nous avons 300 enfants handicapés le projet RBC Le projet si si la waa Burkina Faso Je exemple Si nous identifié dans la région de Thiès les différents types de handicaps Nous avons leen xale bi nga ne suumuye la le ko wutal kit a ba a dem mais si nous wax une inclusion ba pare di institution ay institutions spécialisée, ça c'est pas l'inclusion tant que nous ngi wut ay institutions spécialisées inclusion amul dañu war jël xalé handicap bi mu les écoles ordinaires école primaire modernes, mu dem jangi jeune bi bu dem formation mais bu nous avons les structures des personnes handicapées jeune bi ñëw def formation légui su boba valide am structure bob ça c'est l'exclusion, c'est pas l'inclusion. C'est une pure forme de discrimination encore plus, les wax ni euh, accès aux soins. bu dee yow tey handicapé da ko jël carte bi da koy jël euh, prise en charge wala ñu ne handicapé la service social da koy jël mu ñëw nga war ko faj fajoo ko nga sànni ko foofu di ko romb di ko rombe ndax lan euh, fayul kooku ba léegi si discrimination la même bu fayul da ko war a jël parce que c'est un droit li naa approche droit handicapé dafa war a fay accès au soins parce que la loi d'orientation sociale des personnes handicapées qui a été élaborée en 2002 Nous ratifié qu'en en 2010 le président Macky le décret d'application en 2012 sur 10 chapitres on a appliqué que 4 chapitres mais 4 articles mu 46 articles sur 50 articles Quand nous avons élaboré 2002 on est en 2023 deux décennies nous appliqué que 4 articles Quand ça reste comme de décennies pour nous appliquer les 46 euh, articles est-ce que ce que nous avons fait, nous 21 ans c'est 4 articles kon 46 articles kon 9 at ñu ko war a euh, appliquer comme mu nekk ay jafe-jafe bu ñu euh, loi d'orientation sociale L'article article 4 ba article 9 la relation entre les organisations des personnes handicapées et les collectivités territoriales on parle de la communalisation kon 3 ñu ko indee tey avec la coopération décentralisée mairie ñoo war a tabax ay centres sociaux pour les personnes en situation de handicap parce que mi ngi une nomenclature budgétaire action sociale nekk compétence transférée c'est une approche droit par force la su boobaa bépp handicapé commune boo mën a dëkk force la maire bi defal la ko fii Thiès ñu ñoo porté plaidoyer bi tey Thiès boo xoolee mooy benn ville si Thiès bu structure perso handicapée yëpp am am nañu école de Soumé am nañu association trisomie 21 am nañu les albinos de handicapé moteur ñëpp ñu ngi fi te ku si nekk am nga sa siège bopp ku nekk yaa ngi def ay activité les trisomie ni leen di jàngal peintre ak affaire dessin moom leen di jàngal parce que dañoo am déficience intellectuelle ñi nga xamante ne albinos ñi ngi seen biir centre ñi ngi def leneen ak leneen même sérigraphie def nañ sérigraphie boo xam ne si les canadiens qui nous ont financé boobu dafa regrouper les femmes sourdes les femmes albinos et les femmes handicapées motrices mu def inclusion boo xamante ne dañ jël pour former femmes et jeunes filles handicapées kon am na loo xam ne olof naa yuux ma yuux ba gis yuux sa bopp gën a wóor kon ñun pour ñu mën a am yenn il faut personne handicapée dañoo war dem dans les partis politiques ñu ah, dañu dem ñu militer dans les partis politiques parce que pour que accès dans les instances de décision soo bokkul si parti politique nekk militant d'un parti mënoo bokk si lenn kon boo duggee si parti politique ñu investir la nga nekk si parti foofu nga mën a porter plaidoyer ëllëg boo nekkee conseil ndax fii ñu am nañu conseil à Mairie-Ville nord am nañu fa conseil am nañu ouest encore un conseil te loolu li ñu ko may moo di tey di porter yenn plaidoyer ñoom ñu bokk si ay parti bu ñu bokkoon si parti kon tey jii du ñu bokk si maire yi kon il faut que personne handicapée di dugg dans les partis politiques ba pare tey militant bu euh, leader politique bu ñëw da ngay doxal programme am bu lay xool ñoo bokk. bu leen xool ñoo dëkk bu leen xool lenn wala sama xarit la wala neex na ma ça c'est pas la politique politique programme ngay falee nit ki programme ngay xool yow si biir programme nit ki ndax yow personne handicapée bi est-ce que kooku programme leader boobu prévoir na personne handicapée ak lan la wax si loi d'orientation sociale bi est-ce que dina ko appliquer su jëlee pouvoir est-ce que dina taxaw handicapé yi ak quota 15 pour cent bi nga xam te ne bañ ko voté ba léegi ñu ratifié ko sànq njóge bi ngi naan taxi Mais Sénégal, c'est le pays le plus agrégé en ratification des lois et des textes euh, juridiques. Quand nous euh, leader politique, le programme, est-ce que personne sera Le de l'accessibilité, Mais accès dans les hôpitaux, accès dans les postes de santé, nous un rampe. Nous a accès, pour y les sur le langage des signes. service social si biir hôpital ñu jël en compte le langage des signes mais yow da nga nekk suumee nga ànd sa feebar am na loo xam feebar boo xam te ne bëggoo nit xam ko wala keneen àndal xam ko kon war nañu prévoir dans les hôpitaux koo xamante ne ay ñëw di def la langage des signes bu suumee bi ñëwee mu mën a nekk sutura un travail social ou un assistant social xamante ne tey muuma bi bu ñëwee feebar ba mu am te mënu koo wax surtout jigéen feebaru jigéen mënoo koo exposer partout. su ko defee tey kooku mun la traduire docteur bi mun la fajj mais mënoo ñëw sage-femme bugg la fajj keneen ñëw di def langage des signes mu xam sa fièvre yéen fa parfois handicapé motrice dañ am problème infection ndax lan douche yi nga xamante ni ni c'est pas bien fait c'est pas bien construite ngay raam wala nga yor ay beek douche ni ngi ci kiyee mu la juro ay infection jural la yeneen ak yeneen li si nekk bëri na mënuñu ko wax damay gàttal rek waaye vraiment

ba xale yi di topp ci géej gi dem ci ndox mi nii di dee ci géej gi daal ñu koy naqarlu bu baax te président Mambo Diaw ñu waxtaan ak ñun am na ay yu ci teg ak euh, handicapé yi suñu bokk handicapé yi ñu ngi leen nuyu tamit di leen ziar comme bu baax di leen ziar boole ci budget ñu ngi leen boole tamit ci organisation chaque jour toujours bu ñuy waxtaan danaan dañuy jàppale néew di doole yi ñi nga xamante ni seen i cër matoo war a jàppale ñoom ñooy première war a jàppale di kontaan ci délégation bi ma àndal ñëpp ñoo ngi leen di remercier di wax merci beaucoup kontaan nañu merci. kontaan nañu bu barakaatu ah, mbokk saal bi maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci eh, nuyoo bi.

ndax eh, keroog ci émission bi nga xam dama ci am rubrique fii ci rajo bi dañ ci doon wax ci les personnes handicapées et les personnes âgées bon mu nekk lu ma amal solo loo xam ni musuma sax ñeme rajo waaye keroog moom dama vraiment yàlla dafa dugal sama bopp bi ak sama xel benn inspiration boo xam ni bi ma génne sax eh, bari nañu ma woo ni ma ndax da nga yàgg jaar rajo man leen non non parce que ni ñuy traité ba handicapé yi ci dëkk bi moo ma metti ba sama xol bi muy ñëw sax xaw ma fan laa jógee fan laa jaar dama euh, am ci xarit am ci ay àndandoo am ci lépp benn ngi nii muy Yacine mi nga xamante ni ñoo bokkandoo woon fédération régionale des femmes de développement fii ci yes mu gis ko mu nekk une très brave femme ak euh, di doxal loo xam ni tey man mi handicapé wul sax mënuma ko ak ñeneen ak ñeneen ci mel ni juga mi nga xamante ni moom dafa juddoo suñu kanam yaroo suñu kanam Euh, nekk nit koo xam ni wax dëgg yàlla dafa mos a jàpp la comme ni mu ko waxee yàlla dogal mu am mag bu day ni dem na ba toll fii mu toll nga xam ne tey am na ay moromam yoo xam ne da nga te HLM Diané benn dëkkandoo te li juga ko ci déggoo li donc loolu moo ma animé ma ni bis na ma jox euh, kàddu xam nga man lan laa gëm man si ñaa fi wax léegi ay loi d'orientation ak yu xamul dëgg la baax na de. mais dañoo war a gëm suñu bopp d'abord dañoo war a gëm suñu bopp dañu war a jàppalante te yàlla tax ni tànk yaa ngi xaar ku la jàppale ak ku la tette du ma ni doo dem mais doo sori parce que nag yàlla doom moo fi nekk ci biir salle bi am na ko fi nekk mi ngi ni ma jàkkaarloo fi ñu toog may bind feuille de présence waxtaan nañu te dévié naa ko ci chemin ndax daf ma ni ma da nga bokk ci affaire yi ma ne ko noonu dama ñëw nii rek par hasard dama ko dégg rajo bi ci suñu kii bi mu daw euh, publicité bi ma dégg ci Ndiouga Menti mi ça fait des années gisuma ko ma ni sa m'intéresse damay ñëw participer. Mm. te pourtant maa ngi sonn démb ba tey dama nekk ci loo xam ne mënu woon sax xippi tey xool kon damay wax ni euh, foofu sax dinaa interpeller nii parce que euh, tonton bi wax na ko nee na bés mi def na di mu war a def def caravane def tout c'est nit ñi ñoo demul dematul ci lu am farata. tey bu ñu waxoon ne tey dañoo gaare ay car ku ne 2000 wala ku ne 5000 tey car bi fii di dafees dell mais c'est dommage et c'est malheureux bi ci des mooy ñu ñu war a waxal dëgg dëgg dëgg dëgg nekkuñu ci ba nga xamante ni du ma ne ça tombé dans l'oreille d'un sourd mais euh, ni ñu ko bëggee woon amul mais c'est bien parce que li fi jub tey euh, ça bu de bouche donc ba dellu si ki ma dévié nii léegi mu ni ma man de atelier menuisier laa fi am et il travaille bien parce que war na ma œuvre yi muy liggéey man damaa sax yëngu mu ni ma mais sama xel yëpp ci dem rek la nekk parce que sama benn copain semaine bële passé rek la dem te yegg na yegg na euh, benn kii moo ko envoyé xaalis États-Unis mu bàyyi fi liggéeyam ba mais man soxna si man fi mu ne dama dégg lii sax rajo rek ñëw pour xam mais man dem rek laa bëgg mais xam nga loolu tamit. dañuy xaw a wax xale yi mais gis nga euh, su fekkee ne yaakaar amatul fii du ma ni loolu solution la de parce que loolu kenn rafetlu wu ko mais tamit wax boo xam ne da ngeen di wax wax toog leen dinañ leen jàppale tam jusqu'à quand. Mm-hmm. à temps déjà moom li ma jot a wax ak moom cinq minutes yoo bi rek jël naa numéro ma ne ko après dinaa ñëw sa kër wala nga ñëw sama kër ñu gën a waxtaan il faut que patienter tuuti nga xool solution. et pourtant je le connais pas mais toujours noonu la war di demee. tant que ni communication bi bi ngi dem xale bu bëgg a dem wala mu def boppam di dem wax ba brosé la ko fexeel noo ko dévier ba waxtaan ak moom raisonné ko mu amaat tuuti yaakaar tam mais ci biir yaakaar boobu ana suñu suñu état yi nga xam bi nga xamante ni moo war a jàppale xale yi aussi tool bi fi am na ñu gaz am nañu pétrole am nañu gerte wala euh, euh, wala solution mais amul. bi ci des mooy responsabilité bi ñuy jox parents yi d'accord mais xam nga man fan laa ko teg waxuma ni jël sa xaalis jox sa doom kii mais éducation de base sa compte beaucoup parce que ki yar doomam dëgg-dëgg doomam xalaatul di dem ci ay gaal xalaatu ko mais actuellement on a fui nos xam nga ci naka mooy danoo yaratul suñuy doom ci doylu yaratuñu suñuy doom ci li ñu yore woon démb yaratuñu suñuy doom ci lu bëri loo xam ne xale bi tey dina ñemee taxaw wala muy résister devant sa sa sa mère ou bien son père de damay tukki damay tukki damay tukki sans pour autant mu teg ko fenn ludul sama xarit bi dem na tekki na mais kat loolu la wax soo demee da tekki mais c'est pas évident c'est pas évident donc amna benen solution bu ñu a jël ak benen tournure bu ñu war jël bo xam moy dina wutee ak. nan euh, xalé yi dañoo wara xaar xalé dañu wara patienter mais financement yi fi dugal pour les jeunes là ana ñaat financement bëri na ay DER a ngi fi ay euh, bële ANPEJ et y en a d'autres mais xale yi gisuñu dara dañ leen di bëgg rek mais gisuñu dara ah? donc loolu dafa nekk loo xam ne actuellement il faut ñu changer politique de communication bi ci des mooy xale yi éducation bi dafa des toll nañu foo xam ne xale yi soo amul benn fayda bi wala benn euh, ngëm yàlla bi nga affronté leen bàyyi leen ci lu leen neex ak lii waaw parce que bu demulee kër gi lii nangam ak nangam yàlla moo yor ñëpp. il faut qu'on soit des musulmans ou bien des chrétiens fervents Yo suñu faire sant nañ koy def donc nous man vraiment nek na lo xam xeyna état wala suñ ko ko même bu féké tane suñ wax du sori dinañ xel ni ay xel ay borom xel on réfléchit hein des nous tamit euh, ñun à 100 parce que fi yàlla moo fi ne ñoom seen ay doom souffriruñu seen ay dom sonnuñu ñoom sonnuñu donc il est temps nag ñu ñu yeewu ci li nga xamante ni nii moo ñu dal parce que li may wax ne mali geekat ba ñu amee seen fulla ak seen fayda ne tubaab bi yàlla doo ma fi ne ña dé dee di dem burkina ña nga dee Niger gee sax ñu doon sous-estimé man bi ma Niger dama xool Niger ma ne man ñii sax ñi ñuy bëgg a raw <laughs> ñii ñi ñuy bëgg raw ndax lan nit da ngay gëm sa bopp donc affaire clandestinité bi euh, loolu laa ci wax pour les personnes handicapées bi fan bi bi waa ji waxee loolu ndeysaan ni émission bi dafa am solo ba déglu sax doyotuma damay ñëw rajo fekk si la keroog bi waa ji bu gisee damaa jooy waa ji pap ñëw na léegi mais dafa am fu mu génn léegi dem moom laay defal loolu émission bi mais man gis nga man euh, sama benn copine mi ngi Espagne dafa woote ci biir émission bi mu ne gis ngeen Sénégal yéen yéenay traité personne handicapée di leen delloo ginnaaw mais mu ne ma gis sama buntu kër parking bi fi nekk dafa am fu ñu def foo xam ne ñoom ñoo fay gaare ñoo fa war a gaare nee na bu ñu fekkee keneen gaare sa ku dul handicapé dañ lay fourrière nee na bis bu taxawee handicapé war a yéeg am na fu mu war a yéegee te bala bis bi di départ dinañu xaar ba handicapé bi toog ba ñu seetlu ko ba nga xamante ne mettre nañ ko à lees ba pare bis bi di mais pourquoi yéen ngeen di traité ba léegi les les personnes handicapées man mel leen nag ñi ngi am seen fulla am na ci ñoo xam ne vraiment passé na stade boobu mais nag ci naka la ngeen jàppale xam nga mbiru mi li mu wax nii mais wax na dëgg bala ngay xaar keneen gëmal sa bopp nga def toi d'abord keneen kuy ñëw soo ko ñëw. Mm-hmm. àddina sax noonu la war a tëddee nit doo dépendant de trop. il faut nga wan nit ki parfois ni ko man yàlla rek moo fi nekk damay demal sama bopp moo frère bi nga xamante ni moom laa doon tàngal yaa ngi jàkkaarloo man nii courage boobu laa lay jox yàlla rek moo mais gis nga euh, ñun suñu grande mosquée bi fële Zakbar bu Ablaye Diop bi ñi ñuy tabaxal benn mosquée ci biir pour les femmes mais ñu ngi programmé fu fu handicapé yi les femmes handicapées fu ñu war a jaar pour dugg ci biir mosquée bi

ñun ñoo war a weesale suñu bopp yenn yi man de bisu bis bi bii rafetlu naa ko rafetlu boo xam ne xaaral ma ma jox invitation xaaral ma leen damaa déglu à la rajo bu ñëw toog te lii ma mu participé xam naa lay amul solo sax mais falee ma wax ko pour ñu xam ni bu ñu yoroon yëf yi bu nekkoon suñu loxo dinañu am solution bu ñu def mais malheureusement ñi ko waroon a dégg ils n'ont pas là te nag lii moom wax dëgg fa yàlla dinañ ci wax parce que bés bi heure bi waroon a fekk salle bi fees ndax gisuma lu ñu fi taxawal lu ëpp lii ñoom ñoo koy yuubu ñu yuubule leen kon waroon nañu def le maximum ba nga xamante ni au moins dina am sax ñaar wala ñett yoo xam ne représenté nañu état ils sont là ñu mën a déglu lu ñu mën a wax ñii tey fii représenté le président Mame Boye Diao ñoom tey bu fekkoon ne tey seen lii euh, leader euh, mi ngi ci xëy na nii mu leen représenté ñii ñu ko représenté nii te je sais que ni ñoom dinañ rapporter lii au président mu mu def ci jéego boo xam ne dina jox boog exemple yeneen ñi ñu mën a jàppale les handicapés ñi gilee taw nit ñi taxaw ci seen i man daal xam naa li nekkoon sama xol yëpp dafa bëri sax dama xaw a réer sax booy set ndax si li ma bindoo ngi nii mais. <laughs> am na solo de. je ni bis mi mii. man dama ko yàgg gis sax muy yëngatu daal mais nit la koo xam ne vraiment il faut nit ñi nekk à ses côtés pour mën di jàppale di ko jàppale ci li mu nekk nii c' est important parce que nit def fi lu ëpp la vraiment wa ngi nuyu fi di jiital bi ndax. dañ ne boo dëkkee ci dëkk wala ngaa nuyu dangay ngay nuyu gan yi sargal leen souhaiter leen bienvenue mooy njuga waa Mboro yi vraiment ñu ngi leen di souhaiter bienvenue di leen tatagal de leen sargal eh, yàlla def vraiment ñu bokk même situation bi ñuy dund donc ngeen jóge ba Mboro def déplacement bi rawatina ñëw vraiment may ñu de morceaux yu neex yoo xamante ne bi ñu vibré sunu xol yi ko léegi temui temui thème yi am solo vraiment di nuyu aussi membre yi sax sama gars yi nga xamante ni vraiment on a cheminé beaucoup de choses ci musique bi les musiciens am talent vraiment maa ngi di dégg di jaar di bi ñu fi nekk ñëpp di nuyu également délégation Mame Boye Diao soxna ñu ngi leen di jaar bu baax a baax di nuyu suñu mbokk presse et di aussi sama présidente Yassine vraiment une femme de valeur et une grande dame pour maintenir vraiment elle ne cesse de faire euh, la promotion de des personnes handicapées. et bis bi vraiment nous ngi koy bég ñu ngi koy kontaane Sénégal euh, thème yi ni ko xamoon war ko choisir ko mais ñaari hein, pour man.

bii nga xamante ni mooy thème yi nga indi mooy politique bi nga xamante ni moom moo fës te dafa war a fës te comme ni nga ko waxee def nga caravane def nga sensibilisation man gis naa publication yi ñu war a yëg yëg nañu fi nga war a dem dem nga fa stigmatisation bi ci lii la commencé man su may wax man sama wax mu gën a mu ko raay parce que tey boo demee gis ay autorités. takk say rajo wër def sa karaba ci thème bu mel nii bu fekkoon yëg nañu yëg nañu essentielu thème bi fii salle bi dafa waroon dañ naan sax bis bi salle bi waroon ko fay defee parce que ñun dañoo ñëpp dañoo war a ñëw kon dañ ko war a génne ci salle bi mais supposons ñu def ko ci salle salle bu nii feesul te kenn du ne yëguma donc stigmatiquement problème bi foofu la commencé quoi mais man. dama lay encouragé di la wax ni Thiès moo mel noonu ñun Thiès Thiès waa lañ de mais Thiès moo di mel Thiès du ñu encouragé loo vraiment dafa war a dem man je prends un exemple en moi je suis fier d'être une personne en situation de handicap mais on ma ci complexe mais j'ai toujours pris mes responsabilités étant donné que ma famille mon papa j'ai 10 ans yaay son papa m'a bi bi 10 ans mais 10 ans il soutenir famille ba famille, may wax kon affaire affaire de handicap mais c'est dans la tête c'est l'esprit donc pour wax ni man Mbirou Ndiélamane artiste la auteur compositeur bien léegi maa ngi nekk producteur parce que créé naa sama studio am naa sama sonorisation lépp lépp lépp maa ngi ko def lal sama ñàkk laa ko defee pour dire que ni participer nañu ay festival yu bari yoo xam dañ koy génn dañuy invité euh, ci ci sous région sous région bi ñuy dem di représenter Sénégal donc mais tu vois que ni ñun aar bi ñu dund nii fii Thiès man d' abord lay wax quoi bi ma nekk mais dafay am ay festival de la musique buy am mais doo gis ñu eh, eh, ñu ñu ñu doo ci gis personne en situation de handicap amul tu la ci boole. tout récemment 31 décembre baa ngi nii di ñëw gis naa affiche yi gis naa publicité bi mais ñun fàllewuñu pourtant on est des artistes handicapés. mais waruñu wax sax artiste handicap mais ay artistes lañ dañoo war a participer ci yooyu mais duñ du dool suñuy tur doo leen ci gis de moo waral man je j'ai toujours pris mes engagements ma ni man lépp dootuma xaar nit di créer ma cay dem mais man maay créer samay propre programme président mi xam na la may wax chaque année dinaa créer sama anniversaire maa koy financer sama autofinancement maa koy def maa koy tëgg soxlawu ma dërëmu kenn ku ci ñëw jàpp baax na ku ci ñëwul jàpp baax na mais man sama programme dina réussir parce que man ma dama koy def donc man loolu laa gëm xam nga affaire bi euh, full ak fayda ci ci bopp maanaam full ak fayda ci bopp man ku ma tutul tuutal ma sama bopp parce que suñu borom mooy sàkk ñëpp li jox jox muy xel deful de xel mooy def so mi xel nag di nga def lépp donc soo gisee man mënuma euh, fu ne nii du ma développé parce que yeneen yeneen facettes yi Ndiouga dafa wax lépp Ndiouga moom vraiment ñu ngi lay félicité développement bi nga def tu as tout di mais man je je ne peux donner mon exemple pour que nit ñi xam ne ay waay laago lañu mais duñu on ne reste pas derrière non non non ñun duñ mës a dellu ginnaaw duñ dellu du pay rek la ñuy jël nag pay rek la jël man. dignité ak fierté d'être un handicapé mais dañu jël suñu volonté en main lépp lu ñu bëgg a def dañ koy def incha allahu rabbi su ci état jàppee baax na ku ci population bi jàppee baax na ku ci mën ku ci mën a jàpp baax na mais ñun d'abord ñun man ne sa man li ma gëm mooy lépp lu may def sama fulla ak sama fayda ak samay moyen bopp laa koy defee d'abord man dama gëm sama bopp d'abord soog bi soog nag di xalaat leneen bu li ci ñëw baax na du caagin ne balaa may jàll damay remercier aussi tamit Bambala Joie Bambala Joie frère moom it Bambala Joie di liggéey liggéey bu am solo di accompagner bis mi ci ay plateau des ba lépp lu ñu def rek ñu accompagner donc même salle bi amoon deux personnes li intéressé plateau bi li intéressé l'association bi mooy le pari de l'organisation, les idées que nous sommes en train de développer muy l'immigration clandestine euh, le trafic illicite d'immigrants ak aussi la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec un handicap Mamboy Diaw, Diao qui ki nga le médiateur national de la euh, de la République euh, des responsable politique à Thiès moom it jëmmal ñu jàppale ñu accompagner nous ci bés bu baax a voir. a kon ñu joué dernier morceau rek. daal tàggatoo. waaw ñu koy wax euh, ñu koy wax yaakaar waaw chanson bi mu ngi tudd yaakaar espoir. waaw dañu am yaakaar ci ñëpp rek voilà c'est bon Issa. God.